jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi ñu dellu waatee ci li nga xam ni moom mooy euh, vidéo yi nga xam ni dañ leen koy baaxoo indil muy ay sondage lu jëm ci côté internet bi ci élection législative yi nga xam ni moom la ñu jëm xam ngeen ni nag euh, élection yi dafa am ñu koy saytu dafa am ñuy def ay sondage waaye ñun ci côté bi ñu féetee ci réseaux sociaux yi di ci YouTube ñun foofii la ñuy def suñu ay sondage comme nañ ko defe woon ci élection présidentielle yi nga xam ni yàlla suturaal nañu ba ki jëloon ndam li koo kii moo jëlaatoon raw gàddu gi kon des fois internet euh, réseaux sociaux nattukaay la ci li nga xam ni nag mooy ab jongante loolu yi sabab na nag euh, bi ñu ñëwee démb def nañu li nga xam ne mooy suñu ay sondage Ousmane Sonko moo nekkoon ca kaw du top ni ñu koy amalee fii ba diiru campagne bi chaque jour ni ñu koy doxalee mooy dañuy dem ci euh, page RTS bi nga xam ne ci la candidat yi di wax seen programme ci ñetti minutes yi ñu leen may ci ñetti minutes yooyu yi la ñu naan coppet vue yi nga xam ne def nañ ko indi ko démb nag dañ leen a waxoon ni leen euh, candidat yi ku ci amul 1000 vues duñ la indi euh, yàlla dogal nag ñu bàyyi woon fa ñu baree bari mais bi ñu xëyee tey Euh, li gën a doy waar mooy mille vues dafa të candidat yu bari léegi nag ma ne kon Abdou Top léegi ku amul 500 vues kon duñ la teg léegi nag tey lañ dañ defaat li nga xam ne mooy liste bi ci topp di ci ñaareelu fan bi ci vingt 24 heures yi ci euh, élection élection yi ñu jëm Abdou Top kon ñu dem ci ki nga xam ne moom nga may njëkk proposé ñu xool ñaata vues la am. kii mooy coalition euh, bi nga xam ne ay ci jox ma ko voilà kii mooy coalition euh, Dekkal Teranga moom mi ngi am trois mille euh, trois cent dix vies trois cent kii amul sax déjà mille vies mais après dañoo kii jàpp ci tuuti pour parce que bu dee mille vies moom ñetti candidat lañ indi moo tax tey ñu indi ko moom mi ngi am trois cent vies yi nga xam ne ci vingt quatre heures yi la voilà ñu dem ci ki nga xam ne moo ci topp Abdou Topp Euh, coalition Soppi Sénégal moom mi ngi am trois cent soixante deux vies cent soixante deux vies kon kii moom tamit amul mille vies ci vingt quatre heures yi ña ko seetaan foofu la ca RTS Abdou Top ñu dem ci ki nga xam ni euh, moom moo ci euh, topp ci li nga xam ne mooy sondage yi ñuy def fii ci internet bi. Hmm, kii mooy coalition euh, xàll yoon xàll yoon nag euh, ki nga xam ni moom euh, moo ca nekk ci 24 heures yi mi ngi am 317 vues loolu la am moom tamit amul mille vues ci 24 heures yi ci vidéo bi foofu la ci RTS Abdou Top ñu dem ci ki nga xam ni moom moo ci daal di topp. Euh, fii ci sondage yi euh, Modou sa Dieng moom ci vingt 24 heures yi moom tamit amul mille vues yu ko seetaan ca RTS mi ngi am ci lu toll ci 385 vues moom Modou Boussa Dieng candidat la ci élection yi ñu jëm ci vingt 24 heures yi euh, lii moo ko seetaan ci ay doomu aadama foofu la ci RTS ñu dem ci. ki nga xam ni moo ci topp Abdou Top ci sondage yi ba léegi kii mooy euh, sàmm euh, sa euh, wala sàmm sa gafaka xam sa ëllëg waaw sàmm sa gafaka xam sa ëllëg moom mu ngi am cent 409 vies moom tamit amul li nga xam ne mooy mille vies waaye moo jiitu nag ñi paase ndax ñi jiitu ay 300 lañu doon am waaye moom am na cent 409 vies mooy sàmm sa gafaka xam sa ëllëg Abdou Top ñu daal di euh, dem ci ki nga xam ni moom moo ci topp ginnaaw euh, xam sa gafaka googu yi leen coalition defar sa gox moom mi nga am 413 vues 413 vues moom ci 24 heures yi lii ñoo ko seetaan ci ay nit moom tamit amagul li nga xam ni moom mooy mille vues mooy coalition defar sa gox defe naa kii mooy frère euh, Marème fay Sall bi muy Sall ñu dem ci ki nga xam ni moo ci topp Abdou Top coalition Euh, dund leneen wala dund lu lew waaw ah, dund lu lew defe naa su ma juumul dans ah, euh, Abdou Top lii lan la dund lemen amee ah, wax dëgg yàlla loolu xaw ma ko de saa yi sa lii nga bind nii man xaw ma ko dund daal xam naa ko mais leneen li nga ci def sa olof bi xaw ma ko moom am na 467 vues 467 vues yi nag ñoo ko seetaan euh, ci li nga xam ni moom mooy vingt heures yi foofu la ca RTS voilà euh, gis nga bi nga ko zoomé topp indiwaat ko bi nga ko zoomé léegi gis naa ko bi voilà dund leneen la dund leneen xam naa sama bët yii moom Abdou Top war nga cee jóg saa bët yii ma mel nii ku kii war nga cee jóg euh, ñu dem ci ànd dooleel liggéey yi ànd dooleel liggéeykat yi mooy ell moom am na ci 500 vues ci 24 heures yi nga xam ni. am na ko foofule nga xam ni mooy ca RTS moom nag def mel ni kon moo jiitu ñii jàllagun ndax ñii jàllagun ñëpp kenn amu ci mille vues ñii ay 400 mais moom am na 501 vues euh, wala 501 vues waaw ab dongab daara la buy wax lu ngeen am rek jël leen. <laughs> alaaji abdou topp ñu dem ci ki nga xam ni moo ci euh, topp coalition gox yu euh, bees gox yu bees nag moom mi ngi am ci lu toll 536 vues moom daal so su doon aw wàññi nga ni mi ngi am 536 ay xob ay voix yoo xam ni woteel nañ ko euh, ci euh, seetaan nañ ko ci coalition euh, coalition gox yu bees ci 24 heures yi foofu la ca RTS Abdou Top ñu dem ci ki nga xam ni moom moo ci topp en tête alliance nationale pour la patrie waaw moom mi ngi am 607 vues. ci 24 heures yi moom mi am na 607 vies kon affaire bi baar bi mu ngi yéeg waaw jóge na ci 300 400 500 ba 600 kon moom mii moo leen jiitu amagul mi vie nag waaye li toll ci 607 personnes ci 24 heures yi seetaan nañ ko foofu la ca RTS Abdou Top ñu dem ci ki nga xam ni euh, moom moo ci euh, daal di topp takku wàllu Sénégal muy TWS te kooku di reetaan muy Barthélémy Dias moo ko jiite. Bart moom tamit ci 24 heures yi ci euh, foofu la ci RTS amagul 1000 vues waaw ci waxtu wi ñu koy jël xam nga nag des fois comme démb dalal nañu ñu jël Sonko bi mu nekkee quatre-vingt et quelque am ñu ñëw ne non am na yu teg waaye le fait que gars yi dañ koy seetaanaat vie yu day dem Barthélémy Dias nag ci 24 heures yi ci vidéo ñaareelu vidéo am foofu la ci RTS mi ngi am 640 vues maanaam amagul 1000 vues moom Barthélémy jaas foofu la ca RTS ci waxtu wii nag mën naa am boo demee xool ko sax mën na nekk 700 wala 800 mais ci jamono jii ñu koy def nga xam ne tey jii la euh, talaata euh, daal euh, fii la toll. ñu dem ci li nga xam ne moo ci topp euh, Abdou Top coalition Jubal Sénégal wala Jubbanti Sénégal moom euh, mi ngi am ci 656 vues 656 vues su ma juumul kon rawee na Bart tuuti su fekkee ni jaawalewu ma 656 vues la am moom coalition Jubbanti Sénégal waaw yàlla na jub Sénégal ma nga ca yoon wa Alaaji Abdou Top kon ñu dem ci li nga xam ni euh, moom moo ci topp parti bés du ñàkk. defe naa mooy parti pour Serigne Mansour si Djamil kon moom ñëw na ajaar na baar bi tuuti boo seetloo jëlee na ko moom tamit ci 500 mu ngi ci 600 672 vues am na ko ci vingt 24 heures yi nga xam ni moom la ñu génn euh, foofu la ca RTS 1 Abdou euh, ñu daal di dem ci ki nga xam ni moom moo ci euh, topp coalition Wareef. ci 24 heures yi am na 695 vues yoo xam ne daal seetaan nañu ko kon moom itamit yëgalaat na baar bi moo raw Barthélemy Dias euh, raw ñi ci des mi ngi ci 695 vues ci 24 heures yi ñu génn Alaaji Abdou Top ñu daal di dem ci ki nga xam ni moom moo ci euh, topp coalition euh, coalition république républicain sàmm suñu réew jottali kàddu askan wi noonu lañ ko tuddee moom yéegal na baar bi moom tamit boo seetloo jógee na ci 600 ma nga ca 888 waaw 888 vues la am ci 24 heures yi nga xam ni euh, ci la ñu génn moom coalition boobu daal di na koy euh, daal di am Alaaji Abdou Top ñu daal di dem ci ki ci euh, topp ci li nga xam ne mooy 24 heures yi ci candidat yi naka la ñu daal di amee. Euh, seen ay euh, déclaration ba daal di acca ki ci topp kon mooy ki ci topp mooy euh, TAS mooy Sénégal kese TAS nag mooy Thierno Alassane Sall mi ngi am 1411 vues moom kon yéegal na ko kon jëlee na ko ci 500 600 700 800 Thierno yéegal na baar bi ba ci 1000 moo kon jiitoogun ñoom ñëpp ñi nga xam ne weesu na mi ngi ci 1411 vues ci 24 heures yi foofu la ca RTS Abdou Top kon ñu dem ci ki nga xam ni moo ci topp sàmm coalition sàmm sa kàddu mu ngi am mille huit cent soixante quinze vues sàmm sa kàddu nag bu ngeen seetloo Barthélémy Dias kon ñëw na deux fois bu ngeen xoolee vidéo bi ñu njëkk indi maanaam sondage bi ñu njëkk a indi te mu nekk trois cent boobu dañoo seeti woon takk wàllu bu ñoom Amadou Ba maanaam fi nga xam ne fi la ñu dajaloo ñoom euh, te Khalifa Ababacar Sall daal ciy feeñ foofu mooy takk wàllu bi ñu demee ñoom fi ñu dajaloo ji boobu mooy trois cent yi. mais bu fekkee sàmm sa kàddu la ñoom muy Pape Djibril ak moom mi nga xam ne mooy Barthélémy Dias ak Anta euh, ñoom ñi ngi am 1875 vies ci 24 heures yi foofu la ci RTS kon ñoom tamit yéegalaat nañ baar bi bu baax a baax a baax a baax Abdou Top kon ñu dem kii nga xam ni moo ci euh, topp voilà mi ngi noonu Abdou Top nag euh, Ousmane Sonko mi ngi am 10 455 vues waaw kon Sonko yéegalaat na baar bi bu baax a baax. boo seetloo jëlee na ko ci cent 400 cent 600 cent ba ci 1000 euh, ba àgg ci mille 10 455 vies kon Ousmane Sonko moo jiituwaat waaye xam naa euh, beneen yoon sama gars yi ñuy sóoraale xale yi ñuy jox pro mu di ko euh, mu di ko fop parce que xam nga xale yi far Ousmane Sonko day wër àddina ak xale yi loolu am na ci solo bu dee xale yu mën a dox yi sax waaw mais xale yu ndaw yi moom ñu daal ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon Abdou Top kon Ousmane tey kon moo jëlaat raw gàddu gi Euh, Tahirou Sarr gisuñu ko tey lu tax gisuñu ko tey mooy Tahirou Sarr maanaam ñun gisuñu vidéom RTS xam naa jombul dina dina dina def video mais daal ñun gisuñu ci ñaareelu bés bi video Tahirou ca RTS démb nag moo jëloon deuxième léegi kon Abdou Top dañuy dem ci Sonko bi da nga may wanaat Sonko bi ma xool tey ginnaaw Sonko kan moo ci topp kon tey Sonko moo jël raw gàddu gi euh, ak Barthélemy Dias muy coalition sàmm sa kàddu Hmm? Abdou Top voilà mi ngi nii sàmm sa kàddu kon moo jël euh, li nga xam ne moom mooy deuxième euh, troisième bi mooy taas di al Thierno Alassane Sall euh, quatrième bi ah quatrième bi mooy ñi nga xam ne mooy sàmm sunu réew jottali kàddu askan wi moo jël quatrième cinquième bi mooy ki nga xam ne mooy coalition wareef mooy six cent quatre vingt la am kon ñii ñooy juróom yi nga xam ne tey ñoom la ñu jël kon Sonko moo daal di jël raw gàddu gi euh, après Barth daal di ñëw taas après ak ñi ci topp nii la fi demee Euh, ci waxtu wu nekk saa su ñu xëyee ci vingt quatre heures yi incha allahu rabbi dinañu ñëw daal di jël candidat yi nga xam ne ñoo jiitu euh, ci législative yi ci wàllu internet yi foofu la ci RTS ci 24 heures yi nga xam ne def nañ ko ab vidéo Abdou Top lañ ciy àndal ci liggéey bi nga xam ni mi ngi ko ci amal ndax liggéey bu métti la ko gis xam ne dem copier ay vues ñëw defaraat photo xam ngeen ne liggéey bi yombul kon boog ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom lañ ciy àndal bés bu set saa su nekk jër ngeen jëf ba suba ci waxtu yi